ci turu Baye Lat mi nga xam ne mooy waajuru góor ak turu ñaaxañ yëpp nag ñi fi nekk ak ñi fi nekkut ndax ci bari dañoo dem tolluwaay kon dañuy ñëw ndax bi bi bi mu jotee ndigal li jot da ko wax lu waaye man mu def ca ba daaw ñu yegg ci téeméeri paan tey ji téeméeri paan yi tegal ak lu war toll ci juróom benn fukki satala ñaar téeméeri paan ak ñeent paan ñaar téeméeri paan ak ak lu war ay musuwaar AGT loolu nag eh, ndigal la jot te ndigal yaa indi ndax yow yaa ko ni dañoo bëgg ay paani raxasu yu indi ci kër sëñ bi ba nga ko waxee mu laxasaayu ci ànd ak bokkam wax leen ko lu ci man mu def ko ak dëkkam def nañ ko daaw def ko daaw jéeg eh, defaat ko ren kon ñetteelu yoon a ngi nii te eh, lu ci nekk ñu ngi koy joxe ngir jëm yàlla ak Serigne Touba eh, sëñ Moussa mi nga xam ne mooy buntam moom ci kër sëñ kër sëñ Basiru waaye mu doonee buntam it yooyu jëriñ ji ndax lu ñuy wax fi mu jëm ci mbaakol moom ci yow lay jaar xeebuñu la ci ndax lu ñu war a jot da ko jotali kooku rek dina ko yëg. bi mu amee itam moom it wax na ko ñépp ndax bëgg ñëpp barkeelu ci kenn ku nekk lam ci man def nañ ko ñii def nañ benn ñii def ñaar ñii def fukk ñii def téeméer loolu yëpp nag ngir yàlla ko bokk la ak ko kon nu nu di la xamal ni sëriñ bi na ko xamal ni fii ak njabootam fi nekk ay taalibe fi nekk bu waxan lu ëpp danañu ko jéem tay ni ñu ko yokkee dañuy ñaan yalla nu dem bay chargé auto ba mu fess diko ko andi ci kër ga ak yeneen ya ci wara and ndax señ bi kum nërta li fay na liggéey lo kon ñi ngi ñi ngi lay ñi ngi lay xamal ni bo ni nga nuyul ko ta xamal ko niko euh nun bu la xasse gis mel ni gis nañ señ bi ndax mom mi sax nee bëggan nga ko ni ko non noon nga ko dañ war dem ba señ bi mu ne nga mu ne la man boo demee ci sëñ bi doy na loolu nag ak taalibe taalibe moom day day day day jël jëwriñam teg ko fa mu teg sëriñ ba jëwriñ ji mat ndaw lu mu war a jàllale mu di ko jàllale sëriñ ba loo xam ne war naa jóge ci bi ñëw ci ndaw li ci taalibe bi mu di ko def waaw eh, ñu di la sant di gërëm ci taxawaay bi ak taalibe gi ak jottali gi budé dee non ngay def budé daru Minam non ngay def budé magal gi non nga ci def ñu ngi lay sam tay ñaan yalla guddal sa fon ndax sa bay non la taxawé won da neen ci kër señ bi waaye képp ko xamné ne jëwriñ wa kër ci kër señ tuba jëw nga fa ku mu ci doon lo ndawé ndawé bo di kéré boko né ay ci mu ci lool la daw ba ci la ci la wacc liggéey ñu yobbu ko denc ko fa kanam serigne bi kon loolu itam dañ lay ñaanal yow nga sut ko ufan fan taxaway bi gëna yag yàgg waaye suñu xel dalna ta te barab bu ne la nga fa gàcce rek fa mëna jébé sant nañ la gërëm la goot mi itam ñu ngi sant diko ndax nit lu mën di def te boole ci taalibe ken gënatu ko ta ma dégg ci sëñ Mënu Matar si la yalla nako yalla mu wax ni gor gu ñu wax baax gu wax mam ablay Guèye Cheikh Moustapha soldar ñëw tek muy doora a soldar tek muy doora a soldar ñew ñëw nuyoo señ bi a bi mu ñëwee mi ngi sol sorte ji tollu fi ak ben ben ben chemise di kram New York señ bi bay jog di dem señ gawal bi mu ko nuyo Cheikh Moustapha bi mu ko nuyo bay jog bay dem mu ne ko mursila mu ne ko Mbàkke mu ne ko kikum mu ne ko kii de ci fere sëñ Gaawaan yi la bokk mu ne ko moom de am na taalibe baax na te matti la mu ne mu ne ko nun kat nit ak taalibe rek lañ cee xool buñ ca xasee gisul taalibe xoolatuñ ca dara buñ ca gisatul taalibe soxlaatuñ ca dara waaye moom mi am na taalibe bëgg na ndigalu sëñ bi bëgg na sëriñ bi tam tam sëriñ bala nga caa jaar ni da soo sopp waaye moom mi sopp na sëñ Moussa sopp lu bokk ci moom ba yow mii ñu teg la fañ teg sëriñ bi xam nga li ma wax bàyyi mbii nag nee na sant na ko gërëm ko li mu koy gërëmee mooy aw yaramam bu ne on du ko wax kenn moom mi lay woo boo amee benn yitte du wax kenn moom mi lay woo fi mu ko war a féete féete na ko fi fi mu ko war a taxaw mi ngi ko ni taxawoo mi ngi koy ñaan yàlla guddal fanam mu taxaw ko ba ba bu mu ko bu ko noppee gis mu mu téye njaboot gi ànd ak ñoom waaye nee na sant na ko gërëm ko mi ngi koy ñaan yàlla guddal fanam sant ak ñaaxin gépp itam dinañ la ko wax ñëpp sant nañ la gërëm la di la ñaanal yal na yàlla sàmm la di nuyu sëriñ bi nag di ko wax ba xamal ni ay taalibe mi fi nekk ak njabootam fi nekk muy guddi muy bëccëg lépp loo xam ne itte la ju war a ñëw bu nu ko déggee man dana am tawat loolu bëgg naa ko man te nun ñi nu bëgg ko ah. waaj waajtaay woo xam ne dañuy ñëw ca moom mu yóbbu nu ci sëriñ bi nu siyaare ko mu ñaanal nu loolu daal moom dinaa la ko wax man waaw loolu la nu bëgg sëriñ Moussa Nawel mi nga xam ne moom lañ fi teewal ci jataay bii nga xam ne ci biir kër sëriñ musa lañ ko teewe ndax ci njabootu sëriñ Moussa lañ teew goo xam ne sëriñ bi ci boppam moo nangu njureel gum leen jur na leen bàyyi ba da jure noonee la leen sëriñ bi jure ca loola itam saa su ne moom lay fedd li kon bu ngeen ci doolee nag rafetal seenu taalibe ba jaay ko jënd ko njuréel gi nga xam ne moom la leen jur di dox dox yi nu taalibe fi moom di wax wax yi nu taalibe fi moom loola kon day firndeel rek taalibe gi nga xam ne moom la leen joxañ te moom la leen tegtal yéen a nga ca lii nga xam ne itam moom la waajur yi seere itam mooy bàyyi laat mii nga xam ne tey moo fi bàyyi bada ak sëñ moor mi ak mboolem kilifa yi nga xam ne mi ngi toogandoog yow jataay bi ak mbokk soxna yi yëpp rek ak soxna jaal mi nga xam tamit mooy sa waajur ku ne xam na ne bun la gërëmutoon duñ fi toog kon sëriñ bi moom xelam day gën a dal ndax bu sañoon ak njabootam fun mën a nekk ñu tegu ci yoon la ñuy doon ndax moom de kenn du ko dégg ci lenn kenn du ko dégg ci fenn kenn du ko gis fudut foo xam ne dafay defar wala mu fay woon ak taalibe wala mu fay dox doxin woo xam ne si nii doxinu mbokk la ak doxinu rafetal foo man a gis sëriñ bi maa ngi dégg ko fa rek loola la fay wuti loole nag bu njabootam teewee ci barab nekke fa noona di dox doxinu rafet woo xam ne mboolem dëkk bi tey ànd naan ak yow ci jëf ji nga xam ne da koy jëf jëmee ko ci sëriñ Moussa muy jëf jooju nag waaye day weesu sax Serigne Moussa ndax ci Serigne Touba lay jëm ndax Serigne Moussa ku ne xam na ne lu ko waay jébbal rek mu jébbalaat ko ki fi nekk Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadul ndax ku ne xam na moom itam taxawaay ba nga xam ne moom lay taxaw ci kër Serigne Mountakha kon jëf ji dafa jëm ci Serigne Moussa rek waaye day dem nag ba weesu Serigne Moussa egg ci Serigne mi nga xam ne moo leen taxoon den jëf Serigne Touba moom nga xam ne nag moo leen taxoon doon jëf te ñun ñëpp itam mu ëmbaale ñu ak kenn ku ci ne ñun foofu yaakaar rek Serigne Touba tax ñu yaakaar ko kon jëf ji day dellu ci sëriñ bi nga xam ne moo nu taxoon di jëf muy sëriñ tubaa mi xam ne it moo waral it bis bii nga xam ne tey moom lañ dëgmal ci seen jëf ji jëm ci muy bis bi nga xam ne ci la ñuy màggal bis bi nga xam ne ci la woon ngir liggéey li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba tey man na ne lu ñu am wala lu ñu tal demuk sëriñ boobee rek moo tax ñu sañ ko moo tax ñu man ko moo tax ñu tal ko ne kon tey dana doxe naneen ci nun noo xam ne du bokk ak ni ñuy doxé ci sëriñ bi kon nak képp ko xamné jëf nga ci bisam bi moko waxal bopam néna képp ko xamné def nga ci sama bis bi taxaw nga ci bis bi dang ko rawé ka nga xamné taxawut ci sama bis bi képp it koo xam ne si nga ci sama bis bi dam dang ko rawé ka nga xamné feñut ci sama bis bi seen jëf ji nak jëf ju feñ la ci bisu sëriñ tuba bi ñu dëngal ndax lu tolok ñaar téeméeri paane raxaso ak juroom ben fukki set la ak matériel bi nga xam ne moom la àndal loolu ku xam na ne caaxaan defu ko mànkoo tax ngeen def ko àndandoo tax ngeen def ko doon benn tamit moo tax ngeen def ko te sëriñ bi ci loolu la ñu woowoon sëriñ bi eh. dane bis ku xës jébbalu ci moom rek yaa ka yaa yaa ka nga ka nga bokkal ndey ak bàyyi ci jébbalu ci moom sax bokkutu leen bokk ka nga bokkal jébbalu ci moom nag yaa moom yéen a bokk ak bàyyi eh. kon lislaam jee ko ñor ak taalibee ko ñor dox ngeen nag doxinu taalibe yaatal ko itam ba jortu naa ne am na ñoo xam ne bëgg Serigne Touba ak sopp ko rek moo tax ñu ànd ci jëf ji waaye wóor na ma ne jëf ji génn na sax mu murit mboolem seen xame wala ku ngeen rek jëfam tàbbi na ci lii kon nag lislaam bi nga xam ne moo taxoon Serigne Touba génnoon dem liggéey li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu woote yoonam itam mu ne ku nan ku nam ma dem ci suñu borom ñëwul ñu dem amutub yamukaay wutul ñooñam moom ñëpp la wut mbiram it di loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne taxaw gi nga xam ne Serigne Touba taxaw na ko ci ngir ngir ngir ñëpp xam yonent bi Serigne bi da cee dog woon dog goo xam ne mboolem lu ko daal ginnaawam rek dog ci ñu xam yonent bi ak taxawu ko ak fonk yonent bi ak teg ko fan ko war a teg rek moo taxoon Serigne Touba génn ba tey nag suñu borom euh, fayee Serigne Touba itam ay taalibe yoo xam ne ñoom itam dañuy wane Serigne bi. génne sëriñ bi teg ko foo xamante ni wóor nañu dana ne li taxoon mu tudde boppam xaadimu rasul sunu borom faye na ko ñoo xam ne ñoom tamit ñooy xidmatul xadim yi yéen yi nag yàlla dogal na ngeen bokk ci ñoo ñu xam ne da ngeen di liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nag moo wax ne ku ma lebal guddi ku ma lebal ker ma fay la guddi ku ma defal loo man ma defal la loo mënu ku ma defal loo mënu nag ma defal la lu la jomb kon nag yàlla nañu sëriñ Tuubaa defal lu nu jomb ndax jëf ji taaru na rafet na sun xol na yaa ñi nga àndal liggéey bi ñi ngi lay sant ci turu sa waajur sëriñ Moussa Nawel sa sëriñ sëriñ Moussa Nawel sa jëwrin ci liggéey bi nga xam ne moom nga ànd moom di ko liggéey sëriñ Touba say jëf yàgg nay dem ci moom jëf ji da nga koo baamuwaat tey waaye jiitu na tey an mu ne dana fi yebal doomam mu ñëw ngeen ànd liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi liggéeyloo ci département Tivaouane bi sa kër la njëkk a yendu ndax bokk gi ngeen bokk bàyyi bu fi yendoo tamit day xam ne génnul biir këram sa kër ak na muy féexe ak ni muy firee ci biir kër gi néew na mu koy def ci yeneen kër ndax day xam ne këram la ne kër baayam la ne te sa sa sa baay baay ba day itam jeexoon gim jeex gim jeexoon ci Serigne Moussa moo tax sëriñ bi fayee ko loolu mu ko fayee jëlu njabootam jaxase ko njaboot ak njabootam ñi genn njaboot ci moom loolu nag nit mën naa amul sëriñ waaye muy sab Serigne di sa baay nga nangu ko mu nangu ko loolu yombul te bi moo ko waxal boppam ci ñam jàpp ko tamit ci xolam jàppaloo na ko ñun ñi nga xam ne ñoo ngi yéen lañ boole liggéey bi kon sëriñ bi moom jort naa ne gërëm na leen bu yàgg waaye nag sëriñ bi moom loo ciy wut ba am ko làqu ci sa ginnaaw di wut lu ëpp mel mel ne amagoo ci dara ndax sëriñ bi diisu doyal ci moom dara itam du doy ci ñun ci lu jóge ci moom kon saa su ne rek na ni fàtte jëf yi démb ja te yeesalaat jëf ji nu jëm lii nag yal na ko sëriñ bi ful bu déwénee ñun ñëpp yal nañ ko fekk kenn bañ a manqué yal nañ yokk yal na njaboot gi yokk yal nañ wër te itam fekk màggalu déwén gee jàmm lépp lu ñu joxe ren bu déwénee yal nay asaka ji ci barke Sëriñ Tuubaa noonu daal suñu xol sedd na ba daanaka liñ bëgg wax sax mënuñu koo wax kon ñu ngi sant mboolem ko fi teew di sant tamit mboolem waa dëkk bi di sant tamit mboolem waa tund bi di sant tamit askan wi nga xamante ni moom la la yàlla boole te nga nekk ci ñoom nekk ci ñoom woo xam ne koo ko nettali wala mu tekki ci bëtam tànn ngir nga dugg ci biir njaboot googu ngir ànd ak ñoom ca wane yoon kon yoon woowu yaa ngi ci kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci turu Serigne Mountakha di leen sant bu baax mën nañ ne ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax jëf ji ngeen jëf lu ko ñor la lu ko rafet la rafet ci moom la di ñaanal tamit bàyyi ba dara mbégte mam yendoo tey fa mu tëdd ci jëf ji nga xam ne jóge na ci yéen jëm ci Serigne Touba mbégte moom yal na law ba ci dëkk bi law boobu ak képp koo xam ne jóge woon na ci dëkk bi wuj ji suñu borom ak fu mu mën a nekk yal na mbégte moom mu yendoo tey te fas ku yéenee wéyee ba àjjana yàlla na law ba tes ci mboolem ku mbokkaloon dund gii di dund ak moom fii ci ñaaxeen ci barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëngeen nag kii man damay sa daa koy sagoo xam nga lu tax danoo bokk dëkk Longoor di sama nijaay waaye ba loolu ba noppee keroog mu gis bàyyam eh, jafe na li mu def daara ji fa bàyyam bàyyi woon yokk na ko rakam jafa nekk yor ko téye na ko encadre ko ànd caag moom waaye dox ba bàyyam doon dox fu bàyyam tegewoon tànkam fo mu ko tegee teg na ko fa ca dañoo wax ni mag ñi mel ni ñoom yóbbut waaye boo góorgóorloo ba sa bàyyi fa mu tege tegenum tànkam raafut loolu rek doy na waaye moom mii fexe na ba tànk bàyyi laay fa mu ko tegan ma bay laa tegoon tankam fexe na sàmm na barabu man dama koy sago xam nga lu tax nit bu sa mbokk baxé dama koy sago diko ko man bokk na ci ñi lay tiitaroo man ndax danoo bokk ba noppi te ma te li ma bëgg nga melni nga melni tam na nen boo ne nen boo ne meloon du du du du jubóo ndax mo la fekk dama duma bëgg dama bëgg nga mel nu baax lool lay bëgg ndokk bi la yalla tege ci yoon way bu ko def woon dañ koy diggalé kep ma ak yow nu delu wat andat ngay sama sam sangani di sama jaay loolu moom maa ngi lay sant di la gërëm di ko seere ñaaxin gépp na sama xol sedd na guy yal na la yàlla sàmm te yàlla bokk gim na boole ginaaw yàlla na boole man day ñaan gi may ñaan yàlla na la dal maa ngi koy ñaan ci barke sëñ Tuubaa barke sëñ Jaaw barke sëñ Longo jërëjëf Mbay jërëjëf jullit yi mbokki taalibe yi kon ñuy dellu rek di yëkkati ay cant ginnaaw bi nga xamante ni eh, pare nañ ci liggéey boobu muy liggéey bi nga xamante ni dañoo jotoon ndigal ci Serigne Moussa Nawel mu jaar ci suñu jëwrin di Serigne Moussa ak si ci ñun mu mel ni diirum ñetti at comme ni ma ko waxee ñoo ngi ci doon jot at mu njëkk mi ñu sax ay paan yoo xam ne ma nga waroon dem ca kër Serigne at mu njëkk mi ñu saytu woon lu toll ci téeméeri paan daaw ñu saytu woon ci toll ci téeméeri paan ak fukk ak ñaari paan ren fi ñuy wax ak yow ni ñu saytu nag lu toll ci ñaari téeméeri paan ak ñeenti paan ak juróom benn fukki seta la ak ay paquet mouchoir yu yu bari ngir jébal ko sëñ bi waaye loolu nag boo gisee ñu koy leeral mooy ñu ciy sant suñu mbokk taalibe yi di sant jullit yëpp képp koo xamante ni am na yéene joxe woon ci wala muy joxe ci ñaxam ñoo ngi koy sant di ñaan nag ki xamante ni moom moo am fay muy Serigne Touba yàlla nañu fayal ñëpp li ko mooy dañoo jàpp ni sëñ Moussa bu yëkkatee ndigal loolu jox na ko dafa am lu mu ci bëgg tax mu ci ñun waaye bu doon ay paan rek la sëñ bi yittewoo mën naa am du agsi ci ñun ndax wér na ma ni sëñ Moussa bu ne woon ay paan rek la woo dina am kilifa goog lépp lu mu soxla ci paan mën na ko wér wala usine bay liggéey paane sax mën nañu liggéey paan di ko jëbbal sëñ Moussa kon bu accès suñu jëmm ju xeebu ji mooy dafa am ak jariñu gu ne biir te mu yéene ñu jariñu ci moo tax bi ñu ko jotee ñu gis ñun war nañ ko bokk suñu mbokki jullit war nañ ko bokk ak taalibe yi moo ñu ko noonu sëñ bi yéenee ñu jariñu ci ñun noonu lañ yéenee jullit jariñu ba taxan ñu yaatal ko ba jullit yëpp cee jariñu kon ñi ngi ñaan képp koo xamante ni def na ci ñàqam wala mu amoon ci yéene def ci ñàqam yàlla na ko sëñ Tuubaa fay yàlla na ko ful ba bu déwénee lépp lu ci waay man mu man di ko loolu ñu ngi koy dagaan di ko ñaan mbokki jullit yëpp di dellu di sant ñëpp di leen gërëm te di ñaan rek lépp lu ñu mën ren bu déwénee suñu borom mu mën loo ñu lu ko comme ni nga ko waxee rek yoonu suñu Tuubaa nag dafa nga xamante ni liggéey boobu teg na ko suñu loxo ay yéene ci nekk waaye du ñun ñoo koy doxal ndax dafa am ñoo xam dañ ma faral di wax ne ma deel waajal paan yi dee ko natal dee ko waajal ma leen du ma ko waajal ndax man li may toog rek di déglu fu màggal ñooy damay déglu ba jot ndigal fu ma jotee ndigal ñun ma paan yi ko saytu rek bu màggal di ko saytu bu ma jotul ndigal rek ñi ma ko laaj ndax paan yi du samay paan paan yi sëñ Moussa mbir moomu du sama mbir mbirum sëñ sama mbirum bopp di ko waajal waaye lañ ciy déglu kon waxtu wuñ ci jotee di ko nag dañuy nekk di ko waajal di ko préparé di ko dencal di ko cotiser déedéet ndigal la luy jóge ci sëñ bi di ñëw ci ñun màggal des na juróom fan jot nañ ci commencé nañ ko màggal des na weer jot nañ ci commencé nañ ko heure bu ñu jotee ndigal rek commencé ko kon ñu xam ne loolu moo tax heure bu ñu jotee ndigal rek lañ koy yaatal ci mbokki jullit yi yaatal ko ñu mbokki taal ngir ñëpp barkeelu ci kon ñu ngi ñaan rek liggéey boobu suñ borom yàlla ko ful te mu doon ay xéewal xéewal dooni njariñ yu bare bari ci wisaare ko ci àdduna bi yëpp Modou Mahfouss